ca borom nga xam ne projet bi yëpp ci loxoom la nekkoon lépp Bougane Gueye Dany lépp moom mi la woon waaye tamit lépp lu Bougane Gueye taxaw rek moom mi def ci daal di dem ba jeex ñu bëri nee nañ dafa wéet tey bi moom lan nga sant ci moom. c'est normal boo xamee Bougane am la relation bu mas a entretenir ak son épouse da ngay xam ni wax fa dëgg yàlla li dal ni metti na ci. ni mu taxawee mais boo ko xoolee aussi gis ni jullit la malgré mettit bi mi ngi garder sagoom mën wax ak ñi mën aussi nangu jaal yi comme ni ma ko waxee rek mettit moom ci àdduna fi lañ ko fekk te en tant que croyant mën na ñëw waxtu bu nekk ndaxte fii dëkkuñu fi dañ fii ñëw rek pour demaat donc bu yàlla indee loolu li des mooy muñ muñ bu gën a taaru te tamit ñaanal ki nga xam ni moo fi jóge jiituñu yàlla xelal ko àjjana yi gën a kawe yàlla euh, mu dajeeg njëgal ak yërmande sunu borom loolu moo fi des di leen gërëm aussi ci seen taxawaay ni ngeen jàppale seen collègue di le président Bougane jërëjëf président naka nga yëkkee nouvelle bi wax inna lillahi wa inna di wax ne lu mel nii bu ñëwee li ñuy alxuraan diggal mooy ñu wax ne ci yàlla lañu ñu jóge te ci moom lañuy ñuy dellu euh, dee moom mooy la vérité absolue mooy loo xamante ni jaas moom la tubaab di wax l'inéluctabilité faw mu am kon ñoo ngi ñaanal soxna si nga xamante ni moo fi bàyyi ko tey wuy ju sunu borom yàlla defal ko yërmande yàlla defal ko njëggal bi xibaar bi amee rek bi ma ci échanger ak euh, borom këram di sunu wëllëre muy Bougane Gueye Dany moom ci boppam moom ma wax tey ci fajar ne ma jigéen bu baax la woon kon témoignage boobu jóge ci boroom këram doy na sëkk pour wax ñu ki nga xamante ni moom moo fi bàyyi ko rafetal na tamit sunu njort li ñu xam ci moom as néew mooy ba mu ba yàlla dogalee ci moom li muy dogal ci moom ba pare mu jógee ci famille bu mag amoon wéyjur boo xam kilifa la amoon maam boo xamante ni kilifa la waaye gis nga ko mu mu laxasuwaayuwaat mu laxasu euh, laxasaayu taxaw ci wetu borom këram ci businessam ci entreprise am di ci jouer un rôle majeur kon elle elle était à la tâche ba wuy ju suñu borom te loolu la ñu yàlla diggal kon ñoo ngi ñaan sunu borom subhaanahu wa ci bés bu tedd bii nga xamante ni mooy gàmmuwaat nga xamante ni mooy ginnaaw bi ñu defee gàmmu gi ba pare ba bés ba dellu si ñu doon ci fàttalikuwaat yonent bi salallaahu alayhi wa sallam leeru gàmmu googu ak yiw yooyu yàlla na ko sunu borom def ci euh, fa mu jëm te teg loxoom nag ci njabootam ñuy ñaanal nag borom këram yàlla defal ko xolub muñ waaw sunu borom euh, dëgëral ko sunu borom sàmm njabootam euh, te yàggal saraxam si loxoom. voilà lool daal mooy kaddu teewaayu tey tamit sa diggante ak Bougane am ngeen ay relation yoo xamante ne yu sérieux la ndax defe naa ne tey kenn jiituwu la fi. Bougane nit ku baax la man baax laa xam ci moom ak njàmbaar ak bëgg lu baax loolu rek laa xam ci moom. wa ma shahidna illa bi ma alimna li nga xam rek ngay seede euh, li ma xam ci moom mooy nit ku baax la. li ma xam ci moom mooy lii nga xamante ni dugg naa ci tey sax sénégalais yu bari di ma ci ràññee muy ba ma nekkee journaliste comme ba ma nekkee tey ji homme politique amul benn jamono boo xamante ni Bougane dina manqué occasion ne ma jàppal dina gën a baax du courage donc loolu laa xam ci moom loolu laay seede ci moom nit ku baax la ku bëgg ba mu nekkee simple ba mu nekkee salarié ba pare yemu ci dafa xëy dem nekk entrepreneur te entreprendre dans nos pays c'est difficile donc loolu yëpp mu boole ko ànd ci nag ak soxnaam di yëkkati di teg kon euh, wax dëgg yàlla euh, ku Sénégal amal njukkal waaw kon soxna moomi ñoo ngi ñaan sunu borom mu dolli ko yërmande ñoo ngi ñaan sunu borom mu dolli ko dolli ko di ko jaale tamit turandoom waaw ndax xam nañu diggante turandoom ak ki nga xamante ni mooy coon Balago Seck waaw mooy soxna moomi boobu nga xamante ni moo yóbbu woon coon ci sëriñ Abdou Khadir Mbacke radiyallahu taala anhu kon mu mel ne am na car bu rëy boo xamante ne fàqe ni ci kër Bougane Gueye Dany ndax dégg naa ko ko jege woon la ku ko doon taxaw la tamit ci wàllu liggéey. waaw ci Sénégal yëpp ndax muumi moo tolloo noonu suñu borom joxoon na ko tur jox ko dayoo mu bokk fu baax donc euh, kooku bu bu demee Bougane ñàkk na vrai mais Sénégal yëpp ñàkk nañ. waaw kon ñoo ngi ñaan yàlla jigéen ju baax la woon yu taxaw woon ci wetu borom kër la woon bu ko jàppale la woon. donc euh, ba euh, lii yëpp xew tey kon ñoo ngi ñaan yàlla daal fee mu jëm yàlla na nekk noflaay ci moom. jërëjëf présenté si paysage médiatique fii di Khadim Mbaye Dogo Padros alors Padros kenn dootu la dootu la wax sa diggante ak moom parce que ci média la nekk yow nga nekk si média euh, mu koo xam ni elle est discrète tey mu bawee fii ana yan kàddu ngay liggéey tey kàddu yu njëkk mooy kàddu inna mm-hmm. yi nga xamee suñu borom tënk nañu ci ci bu nit ñëwee gane si àddina bu jóge waat fi bu ko jëlaatee ci coobareem munoo wax lu dul cant ko ci lim la ko joxoon waaye ci lim ko jëlaat jigéen jigéen bu am jom moo wuyu ji jigéen bu jàppale njabootam jigéen bu jàppale borom këram jigéen bu bu amoon sutura jigéen bu làqatu woon ak fi jamono toll gis ngeen image am sax du ngeen koy gis ci réseaux sociaux et tollul foo xamante ne war na dëddu àdduna waaye dafa dëddu woon ci yu bari làqatu nekk ci liggéeyam di làqatu loolu nag bu amee dañu koy dañu koy sant yàlla ak njabootam ak way juróom yi nga xam ne yar nañu ko di tàmbali njaal mi ci sunu yaay soxna Kiné Diouf Diaga waaye di ko jaalee borom këram mu di Bougane Gueye Dany di ko jaalee frère am Waly Balago man nag ñëw naa ngir gunge ko ci këru dëgg gi këram gu mujj waaye dama ko gunge en tant que deret dëgg la showbiz bi day tax ba yu bëri day jaxasoo média bi aussi day tax ba yu bëri day jaxasoo waaye moom yi sama sama sama sama tante la ndax Thione sekk mi bokk ak Aïda Seck benn ndey moo bokk ak Aïda moo bokk ak Fatou Assane benn yaay Fatou Assane Fall jur Aminata Niang mi ma jur donc sama tante la te dama ñëw ngir gunge ko en tant que mbokk dëgg la ma moom amuñu woon ay relation yu particulier ak li ñuy bokk waaye nag euh, lépp rek jàmm lu lu jàmm rek moo taxaw mu umpe waaye tey bu génnee àddina xel bu dal lañu am ndax mosuñu koo dégg nag mu wax fi lu ñaaw baa mu def ko fi mosuñu dégg ci njabootam lu ñaaw baa mu def ko fi li ñu ñaan kay mooy njaboot gu sew gi mu fi bàyyi sunu boroom yàlla teg ci loxo ba nu yàgg ci àdduna lool di ko ñaanal te it sénégalais ñaanal ko ñu ottu mbir bu amee ñu dugg ci réseaux sociaux yi di bind rip rip rip loolu yëfi tubaab la repose en paix d'accord lii ci ëpp solo mooy def say lixlaas fukk ak benn mbaa ñeent fukk ak benn ndax sa moroomu jullit la ay sa moroomu doomu adama la nga ñaanal ko fa mu jëm suuf fooyof lool. loo mës na partagé ci moom ci mbégte ci àddina ci jamono ji bugg ko soxlawu ko. lam soxla mooy lixlaas la waaye ngay wane ne sama nit la mbaa sama xarit la nga partagé image amul solo ñaanal ko te nga sàkku ñaan ci ña nga publi te ña koy gis ñu ñaanal ko nanu ñaanalante. sa frère Wally tey am na perte bu énorme Euh, c'est vrai mi ngi wàcc génn album le 6 ci veille bi ñu ne ko sa sa sa sa taaw sa yaay moom yaay sax la ko doon woowee euh, jóge na fi euh, boo nekkoon ci place Wally di nga yëg lu énorme. Wally c'est normal doomu aadama la et que moom mi dafa dafa dafa spécial ci moom. boo xoolee ci njabootu Thione Seck ñëpp la bëggoon Wally ñëpp la bëgg waaye na ma mel ak moom est-ce que gis ngeen ko cofeel gi mu am ci moom c'est-à-dire bu koy way sax da xam ni que kii yaayam lay way. donc c'est normal loolu du sax loo xam ne dañ ko war a laaj ci biir xolam fa ko fa mu toog actuellement am na lu mu yëg waaye nag lu mu mënti yëg leen la ñu koy dénk mbiru yàlla la waaw mbir bu amee doon it am naa tiis ba am naa naqar am naa cant ngay wax ak nu mu mënti demee santal doomu aadama ab jaam dangay ngay sant ndax yàlla mi la ko jox du la ko joxaat munoo wax ba gisaat ko ci azar rek ngeen mën a daje. te ñaanal yàlla yàgg ci àddina yow di ko ñaanal ngir fii mu tëdd nii suuf di woyof ci kawam bàmbeelam di yaatu mu mën a jàkkaarloog boromam. jërëjëf.